أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonentam bu tedd bi Seydina Muhammad ñoo ngi ndokkeel ñëpp di leen siyaare di amaat kontante bu baax di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor ak suñu naafila bi jaay si de wujud sallallahu alayhi wa sallam ñu indaat beneen addis bu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si leeral li nga xamante ni moo di xëdd ak barke bi nga xamante ni am na ko kon mën nañu wax ne xadd sunna la ndax yonent bi salaa sallam daf ñu ko digal te yonent bi salaa sallam lépp lu mu digle rek sunna la lépp lu nga xamante nii nit def na ko kanamam mu nepp si rek loolu dañ ko wéyal loolu sunna la te kon yonent bi salaa sallam digal nañu ñi xëdd mu ne xaddasana aadama ibnu abi ilyas xaddasana somba xaddasana abdul aziz bun suhaybi قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم تزهروا فإن في الزهور بركة من جلين آدم خمانتني موي دومي أبي إلياس نجلس صعيب ولا نجلس صعبة جلس عبد الحسيس بن صعيب من دغنا أنس بن مالك wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa mo ne na ngeen di xëdd ndax kat xëdd am na li nga xamante ni moo di barki na ngeen di xëdd ndax xëdd am na li nga xamante ni moo di barki léegi nag bu ñu waxee barkab xëdd nag dañuy wax ne danañ laajte ne lan mooy barkeb xëdd waaye Mawlana Cheikh al Islam waxoon nañu ne barke du jëmu waaye lu mu dugg rek ñu daal di koy xam léegi doomu aadama bu jógee da xëdd waxtu julli mën na koy bañ a faat ndax bu jullee bu xëddee ba pare fi may xëddee fi may jógee di julli daanaka du surante foofu mën na fi bañ a te dëgg-dëgg waxtu julli jot nga mën jog jóg julli loolu barke gënu koy for loolu tamit xewal gënu koy for kon daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal mu ngi jàngal si addis bi daal nee bu ngeen nelawee ba waxtu xëdd jot na ngeen jóg ngeen daal di xëdd kon xëdd am na solo waaye bu dul dara rek ñu def ko ngir lan ngir yent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko digal ni ñu na ngeen di xëdd ndax nekk ni si xëdd ay barke yoo xamante ne kenn xamuñu toll ñu ngi ñaan yàlla barke boobu nga xamante ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nekk na si xëdd ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ dajeeg barke boobu bi jaay sidi wuji sallallahu alayhi wa sallam yéen yàlla nangul ñu koor nangu leen seen koor nangul ko mbooleem julit bi jaay nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daxwaana والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته